mu sëriñ Ahmadou Mbacke mu sëriñ Modou Mamadou Mbacke mu Cheikh Anta borom bis di félicité di gërëm sëñ Ahmadou mi mbind mbind mi mi wax ci borom dërëm ma ngërëm mi ñëw tey yee Sénégal woon leen kan mooy Cheikh Anta Mbacke kan mooy Sidi Makhtar Mbacke loolu dafa nekk lu am solo ndax dañ nekk ci àddina boo xam ni dafa jaxasoo ay façon yu ne ñoo am ay bokk arab ay état islamique ay ansardine ay façon bu ne ci lu ñu am bokkul ak dara yemul ak leneen ñoo am li gën ñoo am li mën muy yow li murit ak Cheikh Ahmad Bamba ak ki nga xam ni bras mu wóor la woon nekk premier talibé ñëkk a jébbalu ñëpp xam nañ ko mu Cheikh Anta Mbacke kooku kon loolu nit ñi war nañ koo xam parce que yoon ñu am mu ngi fii bu ñu waxee foi ngëm-ngëm wax travail jeex na amul addu kalpe da ngay liggéey ñàkk jëriñu mu jox la koom-koom jox la doole nga mel ni wala nga jéem a mel ni sunu sëriñ borom gaawaan Cheikh Anta Mbacke liggéey jëriñ ba pare nag ànd ak ngëm ku wóor ak fidélité woon sëriñ bi mbëggeel bu amul ab Cheikh Ahmadou Bamba sëriñam di magam kon ñoo fi nekk di wax parce que ñu ma ko gën a xam ñoo fi toog sama sang waaye ma dama juddu juddu ci Daaru Salaam suma maam nekkoon soxna sëñ Modou Mamoun Mbacke ñëwaan Kaolack damay uuf ndeysaan sëriñ Modou Mamoun ca douze heures ba ca tendresse maam Thierno Diouf ndeysaan bëkk dégg ba nekkoon ca Kasdaak ca Kaolack soo maam ñu ma bu ñëwatee sëñ bi dangay ngay jébbul ci doom yi ku fi njëkk ñëw rek ku mu àndal rek bu dee sëriñ Modou Roqee la wala sëñ Ahmedou ndax ñoo ko du gunge ngeen rek ba mu ñëwee ànd ak sëñ Ahmedou moo la ma yàlla boole ma nekk xale bu ndaw tu tànk ma jébbalu ci sëriñ Ahmed booba maa ngi jàng daara boobu ay juróomi at juróom benn at la am ba may jébbalu peñu suukar laa joxe jébbalu peñu suukar yu gudd yooyu samay maam ak samay mbokk yëpp ñu ngi tëdd Daaru Salaam kon suñu Amadou dana ñaanal gudd fan di yàgg fi lool ci sa liggéey bii comme ni koy waxee min lay des ndax sëñ Touba baax na sëñ Touba dañ xam nga wër foo taxaw sëñ Touba fa nekk foo dem fekk fa kër sëñ Touba muy New York muy Paris muy Italie foo dem sëñ Touba bi doo noonu Cheikh Anta sëñ Touba jox ko kon mu joxee maam Thierno kon mu joxee ñeneen kenn sëñ Touba